loolu loolu presque mooy lay jóge ci bureau de vote yi te yi wane ko nga gaaral ko askan bi te yem ca loolu commission nationale de recensement des votes moo am sañ-sañu déclarer résultat provisoire conseil constitutionnel moo am sañ-sañu déclarer résultat définitif Idrissa Seck mii amul sañ-sañu génn ne man maa gagné man mii aw ma sañ-sañ bi Macky sal amul sañ-sañ bi waxuma laa nag ku dul candidat lu dul presse kon ñu ngi woo ñi nga xam ne ñoom la constitution ak loi électorale jox sañ-sañ pour ñu organiser élection xam nañ ni lii yoon dañ jël seen matuwaay pour arrêter ko muy CNRA muy commission nationale de recensement muy Sénat muy keneen ak keneen ba ci conseil constitutionnel nañu arrêté dérive yi nga xam ne gis nañ ko balaa muy balaa muy ëpp loxo ñaareel bi mooy Sénégal dafa toog ci benn socle boo xam ne mooy suñuy kilifa diin ak suñuy kilifa aada ñu ngi leen wax nag nañu wax balaa mbir mi di ëpp loxo nañu woo Macky ne ko na delloo si xelam que nguur nag bu jeexee rek ci xelam parce que Sénégal moomu ko donn ko balaa mu fi nekk ay nit a jiite Sénégal bu seen àpp jeexee jeexee dem nañu bàyyi Sénégal ci jàmm